asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbooleem jullit yi ne ci réew mi ak bitim réew ak fu ñu mën di nekk ak ñi nga xam ne sax doonu ñu jullit te dëkk ci réew mi di ñaanal bu baax mbooleem kilifa yi diine yi nekk ci réew mi di Sénégal di ci jiital Cheikh Mountakha Mbacké moom Sëñ Bassirou di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak mbooleem kilifay diine yi yi nekk Sénégal buñ ci tuddee siñ Mbay Si Mansuur mën naa yóbbaale ñi ci des ñépp ak mbooleem ñi nga xam ne sax dañoo jiite yeneen diine yoo xam ne ni du du du diine lislaam ñoom ñépp ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax di yëkkati ay kàddu yu gàtt rek yu jëm ci mbir mi fi xew fan yi te bëgg lëmbe jamono muy coow lu ñàkk solo loo xam ne nii yëkkatiku na te kenn ku ne mi ngi ciy wax ñii ñi ngi ciy wax ngir seen intérêt bopp ñii ñi ngi ciy wax ngir bañ di di ngir gën xambu ay wi ñuy wax ne nag lii ñu gis ci réew mi fa mu jëm du baax te aw ay wenn mëtu cee xeeb lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw mët a xeeb ndax musiba mu ñuy wax musiba mbàbba kumba xista la boo bu wér boo xam ne nii ci réew mi la xewe bu ngeen demee ci ñuy jàng histoire mën nañ leen ko nettali mbàbba mbàbba kumba dëkk bi mu dëkkoon weesu soriwul fu ñuy wax baaba gaaraas fii ci kajoor góor gu dëgër bopp la woon koo xam ne lu mu ŋànk rek nee na dana dagg te kenn mënalu ko dara ba tax na mu sóobu ci lépp luñ fi bàyyi woon rek bu ca nit ña xasee wax mu ne dana ko def loolu nag li ko may mooy lu mu musa ngànk dagg na ba bis ñëw ak tabaski jot mu wut xarum seereer kalxaada ne dañuy dañuy tere dañuy tere ku ko rey dëkk bépp ak mag ña fa nekkoon da ne ko mbab kumba lii xarum seeral te kenn du ko rey baaxut mu dëgër bopp ne dana ko rey loolu lépp nag ak dëgër bopp ak lu mu ne lu mu ngànk dana ko dagg moo ko yóbbee ci gàttal rek ba ba ba tabaski ga mu rey ko dëkk bi dañ daan dajaloo ñoom ñëpp buñ feesalee gi dem feesal ki bañ demee ci këram xam ne mii xarum seereel mi ñu ko doon teree la rey dëgër na boobu ba rey ko dëkk bépp maase ne duñ ko duñ ko jàppale mu woo doomam mu jàppale ko tër xar mi bëgg koo rey teg paaka bi ne xun xar bi ne ko xun mu daal di dawal paaka ba daat koy rey di ko jaay ak dëgër bopp ba mu ko reyee ba noppi itam dëkk bépp maase ñëw ne ko yow de duñu la jàppale ndax def nga erreur ba mu demee ba xam ne def na erreur itam mu reconnaître ne def na erreur waaye lu ko dal dëgër boppam ànd ak doomam di suuli ji di sànni ji xarma ci ak jàjj gu fa nekkoon jàjj mooy teen boo xam ne nii dañ koo gas-gas ba nut mu ànd ak doomam mu jàppale ko ñu di ko ca sànni ji bañ demee ma nga sol xaftaan bu rëy bi mu koy sànni béjjéne xar mi moo lonk ci yére bi mu soloon mu dugg ca teel ba waa dëkk ba ñëw di ko wàllu si àndandoo ñoom ñépp teen ba gaaweeku ñoom ñépp ñu maase dugg ca ca biir teen ba nag moom yoroon ngir di ko waccoon ko ci kër ga moom lañ ko dëjale ñaari ñaari ñaari wujj yi seen yi mu amoon ñaari soxna yi mu amoon seen ñaari doom ya kenn ki ne ñëwal ma won la ni sama baay doon def xar mi mu doon rey fi suba tëral ko jël paaka ba daal di dawal ca put ga moom it yaay waaye juróom jóge ca jaba ñëw bi mu ñëwee gis ne dañoo rey doomam mu jëlu kuur dóor ko wujj wa nga xam ne musiba la moo xam ne nii daal fa mujj àkke kenn xamut ko te lépp dëgër bopp moo ko ak ba ba ba fa fa ba lii xew ci réew mi tamit maa ngi ci yëkkati kàddu di di wax président Macky Sall ne ko na deltu ginnaaw na deltu ginnaaw ci lii mu mu mu sumb te xam ne fa mu jëm kenn xamul fa muy àkkee ji aw ay wenn mutu cee xeeb wenn it mutu cee taal ñi nga xam ne itam ñoo koy digal naan ko continuel continuel wala wala wala wala wala bul dëpp état c'est la état état état maa ngi dégg ñoo démb kuy wax damay jaar ci turam directement muy Idriss Seck nga xam ne moom mutut wërta mat conseiller ci kenn ndax nit koo xam ne loo wax génnaat ca te sa waxee eh, Sëñ Abdu Lahat dane bu ngeen di jàpp gor jàpp leen nit koo xam waxi daaw bu ngeen ko méngaleeg jëfi renam mu doon benn te Idrissa Seck moom waxi daawam ak jëfi renam dafa dafa woroo dafa woroo te ku xam wax ak communication li muy wax lépp moom taal li muy wax day gën a sotti ci ay wi pétrole ndax aw ay du tàkk ba noppi ngay jëg naan li dee bariwut ak naan euh, Ousmane woon a génn na wa bu mënta génn itam na wax ku ko wax ñu bàyyi yàq gi loolu bu ko waxee rek mooy reconnaître na ne moom mooy yabal ñiy yàq te yooyu ay xeeti discours la yoo xam day jaxase ay nit ne bu ko defee man danaa dem ca Macky la bu ma ko waxee dana bàyyi waa Macky la comme nee nañ sëñ Muntaxa ñaan na ko suñ am sam suñ suñ suñ Abdou Samatum suñ sooy wax ñëpp di ko dégg mu ne sëñ bi wax na ko ne ko ay wii man bu ñëwee ci yow nga jaat loxo mu lànk Idrissa Seck ne bu ngeen waxee ne si eh, Ousmane Sonko mu wax mu woote xale yi yàq ñu bàyyi yàq gi man danaa wax Macky Sall te dana ma maye comme moom moo mën a wax Macky Sall Sëñ Mountakha ñaan ko mayu ko moom man koo ñaan may loolu it beneen affaire lay doon loolu lépp man communication ni ma ko déggee mooy moom Idrissa Seck bëgg na Macky Sall am jafe-jafe bëgg na Ousmane Sonko am jafe-jafe ndax li mu wax ci ne bañ ma woowee dama ba may wuy ji noonu laa defoon vidéo yaa ngi fi mën ngeen koo génne dem waar léegi moom bañ ko woowee am na ci yoon wi 5 heures de temps moom Idriss Seck te it comme nee na moom am soow la ba jaxasoo na ak mburu lii muy wax kenn laaju ko ci xalaat kenn defloo ko ci intervention day commu moom nitu communication la koo xam ne toujours day jàpp ne nit ñi moom mën nay wax ak ñoom ba wëlbati leen ndax niñ génne ci moom amul benn yoon boo xam ne nii ah mën naa génn wax te nee na ci communication dafa wax ne am na kilifa yu may ñaan tudd na cité na ay tur ne Alioune Tine ak ay kilifa diine du ngeen ko dégg mu tudd genn kilifa gu am solo waaye loolu bataille psychologique la boo xam ne bu day mel ne sëriñ dañ koy dañ dañ koy woo di ñaan xalifa yi na tudd yi koy ñaan kenn daa tudd tur ne euh, Alioune Tine lu tax mu ne ay kilifa te tudd sitiwut seen i tur kon loolu lépp ak jaxase la ak yàq ak bëgg taal réew mi waaye na leen leer ne. aw ay moom wenn na mutu cee xeeb ndax mën ngaa koo taal commencement bi waaye bul xam fa mi yem te réew mi fii mu tollu te ñoom ñu ne ci kiris sanitaire lañu nekk ñoom état bi nit ñépp kenn amul euh, ñi seen liggéey yàqu na ñi mënatuñoo xëy fa bari bu liggéey ñépp ñu da rawatee ñi nga xam dañ daan liggéey guddi ñu indi fi loo xam ne nii ku xaax ku xam tey wax rek xam nga ne lii lii nii feebar bii ñuy wax nii maanaam kenn du ne amut ndax kenn du ne amut waaye dayo bi ñu ko jox demewut noonu ba tax ñu tëj sax ay jumaa fomm ay bis yoo xam ne ay kilifaa ko doon def yu am solo euh, dégg nañ ci Ousmane Sonko mu ne moom moo tax ñu def lii bu dee moo tax ñu def ko amee nañ nit ñi àq joo xam ne ni kenn xamul àq ji fa toll ndax nit ñi nga xam am ñu bari ñoo xam seen kër tas na ci at mii atum ren mii nga xam ne lañ daan am mënatuñ ko am ñii dugg nañ ci gaal yi ñii am ay jafe-jafe bu dee li Ousmane Sonko wax ne moo am loolu moo am ameel nañ nit ñi àq joo xam danañ ko layoog seen borom te dañ ko àtte fii ci àdduna ba bala ñoo dem te nag fitna moom kenn mënta dëkk di ko teg ci nit ñi ba noppi yàlla di la may jàmm loolu yàlla mayu ko kenn yàlla mayut kenn ngay fitnaal nit ñi ba noppi bëgg bëgg bëgg yàlla di la may jàmm bisi diine yu baax yi ñu daan def yépp Sëñ Muntaxa moom li mu def loolu la war a def ndax suñ Musaa Ka dafoon xalifa day juuboo woroomi doole xaqiiqatoog sariixatoom lay boole li muy def nii euh, nit ku mat ku jiite noonu nga war a mel man yëkkati naa ci ay kàddu yu bari ci jamonoy couvre-feu bi ñu daan marché di artu xale yi Tuubaa di leen wane sëñ bi ñun am nañ kilifa ñun am nañ kilifa nañ ko déglu rek te lii muy def moom moom la war a def kilifa nag moom baatam képp la am su la fekkee bu waxeek yow doo doo dégg te boo jaaxlee ñëw ci moom téye boppam képp lay man man am naa ci ay xibaar yu wér ay kilifa yu naroon a dem ci sëñ Muntaxa démb ngir wax ko mu wax ci waaye dañoo dégg ne sëñ bi ña euh, wax naag président nanguwut te ñoom dañuy bañ a bëtt seen kilifa loolu moo leen ko tee def démb rek bi may ñëw dajee naag ay takk der euh, ñu naan ñu naan ma waxal ak wax leen ak sëñ bi mu yëg lii xew ci réew mi ndax mu wax ci ndax ñoom bëgguñu ay wi tàkk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy daje gone yi ndax benn famille lan ñii dajeeg ñoom ci mbedd yi ñii seeni baay lañ ñii seeni nijaay ñii seeni mag ñii seeni rakk benn famille lañ ñii dañuy xëy solte ni rek dem ñoom ñu ñu xëy dem dem defi leneen ba kii ñu rey rek ci osan bi firnde la ci ndax moom baayam euh, homme de tenue la woon homme la woon baayam yaayam homme la kon ñoom waruñoo nangu seen njaboot gay di nekk ci kër ga ñu wëlbatiku di di di di jàmmaarloog ñoom ndax euh, kilifa day mat kilifa xajoo nit ñi xajoo seeni bang bang waaye euh, lu ñu wax nga ay droit ay état ak ay yooyu yëpp dëgg la sëñ Fallu dafa musa wax Senghor ne ko diw sàngam dañ ko kalaame mu ñëw boo ñu ñëw ñaan njekk sëñ Fallu ngir mu wax ci Senghor mu ne alaaji daan daraame na ko jox buum gi mu woo Senghor bi mu ko wooyee ne ko damaa bëggoon mu ngeen ngeen def ci yërmande te bàyyi ko Senghor ne ko sëñ bi nag ki dafa yoon a ko jàpp mu ne ko luy yoon lan mooy yoon loo xam da ngeen a dajaloo waxtaane ko seen néeg rek dama bëgg mu fekk si ma fii Senghor du ab du ab jullit te réew mi mu jiite woon quinze pour cent musulman ñoo fi nekk ñoom daanaka minorité bu ndaw lañu woon waaye xam na ne sëñ bii li mu koy wax mooy arrangement am génn ci porte porte sortie bu rafet Macky Sall bu fekkee bëgg ngaa génn ci porte sorte bu rafet lii lañu lii nga jàpp bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko te dem seeti leneen te xam ne ñi nga ñi nga xam ne luñ mos a ŋànk mu dagg la leen fekk amul amul njariñ ñi nga xam ne dañ naan lu muy benn rek damay cité xadaf yi benn la ci eh, ak ku ñu nga xam ne moom eh, kenn ñemewu ko woon lu mu mos a ŋànk dagg na ko gis nga fa mu fa mu mujj gaw nan ko ay ay fan mu doog a mu doog a génn kon damay cité ay tur yoo xam ne nii ñi nga xam ne luñ mos a ŋànk mu dagg la leen ca ca fekk la leen ca fekk gis nga ko te wolof day wax ne jàppkatub jaan boo gis jaana koy mujje te lii mbir mii buñ bàyyiwut mën naa bañ a mujj fu baax ci réew mi ndax euh, euh, dama lay indil ay ay dama lay citeel ay tur yu gàtt yaaye jàmmi mii nga xam ne euh, ñoo sësaloo ay réew kenn ku ne xamoon na lu mu mos a ŋànk rek dagg na te lu mu mos bëgg am na waaye ba mu demee ba nga ba ba nga xam ne peuple bi ñoo ñoo décidé gis ngeen la ko ca la la ko ca fekk ak Xadafi ñu amoon puissance lañ euh, mën nga ko gën a yaatal sax ba ca Firxaw na nga xam ne yàlla joxoon na ko nguur goo xam 40 jours la daan too toog doog a dem duus demoon na sax bay tabax ne daa bëgg daa bëgg a daa bëgg àgg ci yàlla moom loolu lépp nag li koy indi mooy màndite ak màndite ak nguur nguur boo ci nekkee fi ne ci màndite ngay ne am na boroom xam bu mag bu wax ne nguur dorog la fi ne boo ci nekkee te moytuwoo ñi naan la man nga ko ak sañ nga ko ak dara du ci mujj ci sànq la képp la ñuy la lañuy dugg te war ngaa mën a am bunt bu rafet te lii boloke réew mi at mii du dara nit ñi toog kenn liggéeyut kenn defu dara lii tardement la ci sa deuxième mandat bi nga xam ne moom nga nekk te réew mi ñu la fi jiitu aw nañ fi te taalu euh, aw ay awu mel ni amu fi te lii moom du jur jàmm du jur jàmm di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy manifester ak ak ak ministre de l'intérieur bi nga xam ne ndaw la te moo ngi doog a dugg àdduna moom it génn def discours am bii mu def bërki démb mal ne procureur buy àtteeg na na na na na xoolaat ay waxam bu baax ndax it gone la te àdduna day dem te gis ngeen ay nit ñoo xam ne nii li ñu leen di toppee bi ñu leen koy topp toog nañ lu mat ñaar fukki at di leen topp loo xam ne nii ci seeni responsabilité la defoon la la la la demee woon. Euh, te it euh, ki nga xam ne moom nga wuutu mooy Aliou Nguy Ndiaye moom dégg nañ ko ci responsabilité yu bari yu fi jaar ci ginnaaw mu ne ci ay responsabilités yi boppam la la la ko doon defee euh, heureusement mën naa mbakkan bakkan waddu ci waaye moom mën nañ ne donte génn ci génn ci benn porte porte bi mu génn tane na ndax bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw communication bi Aly Ngouille Ndiaye doon def ci màggal Kazu Rajab daaw euh, ak communication bi mu def bi màggal gu mag ñëwee ñaari communication yi boo ko tegee daa day doon différent ndax euh, màggal gu euh, Kazu Rajab daaw moom fii la wàcc ci dëkk bi di woo ay kilifa di doxal boppam ngir bëgg ñu annuler màggal gi ngir feebar bu am. lu jiitu loolu dégg nañ ay kilifa yu wax ne da ay am téléphone seeni téléphone dañ leen di woo di leen wax ne leen ñu ñu ñu annuler màggal yi. moom Aly Ngouille Ndiaye wàccal na boppam ci dëkk bi jokkook ay kilifa dem fa ci tànkam lu tax bi màggal gu mag gi ñëwee mu dégager responsabilité am ne mbirum diine ak constitution bi dañoo am différent ndax musuñu caa musuñu caa bokk maanaam mbirum diine ak constitution bi dañoo mus a séparé wu nga xam daa ne sëñ bi mooy organiser màggalam kon lu tax kon xanaa màggalu sëñ Fallou gee passé daa doon mbirum diine wala daa da daa bokkut wala dañuy tiit ci pression boo xam ne nii dayo yi dañoo yemut ay ay ay ay ay ay kii la yoo xam ne nii yu ay ay lu ñu wax rek ñu ne ay texte ki loi yooyu yëpp dëgg la waaye li ñu war a def dëgg dëgg dëgg mooy la sëñ mun taxaa waxoon bi ñu jàppee sëriñ daara boobu yéen a koy fàttaliku ci ginnaaw mu ne da leen di déglu ñoom ba àtte bi daanu moom dana jël ay responsabilité moom sëñ mun te it dana sàkk ndaje moom mag fii ci Touba woo kilifa diine yépp ñu daje waxtaane réew mi ndax am réew boo fa nekkee nekk fa 95 pour cent kon te ñoom ñu ne euh, li ëpp mooy gagné majorité moo existé te ñun ñu ëpp fi ba noppi mënuñoo dogal luñ luñ dogal ñoom buñ ca ñaanee ñu lànk loolu wa dañ ko war a fii lañ ko war a lijjantee nag fii ñu toll jamono yi lañu war a dajaloo te bàyyi tàqalikoo gi ñu fexe bañ tàqali ñu ko kenn ku ne toog sa roq naan mënum lëmm te ñu jéem a àndandoo doon wenn say te xam ne l'islam jenn la diine jenn la te ñun ñëpp ñoo bokk. Euh, jënn diine te ñoom nee nañ majorité moo existé te majorité boo boo gisee yàlla di ko tudd ci alxuraan fu mu ko tudd rek lam cey teg du lu baax euh, kon majorité bu mel nii lay wax majorité boo xam mënuñoo ànd kon nañu xoolaat suñu bopp te waxtaanaat te jéem a doon benn te fas yéene fa ñuy nasoo ka nocc ñu am fa kàddu loolu mooy li mooy mooy mooy mooy mooy liggéey bi nga xam ne moo moo ci war ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy tuddoo diine di nag ab appel bu gàtt ci ñi nga xam ne ñooy manifestant yi ñu wattandiku yàq ndax yàq baaxut euh, kullu wasrabu wala tusrifu la alxuraan wax lekk leen naan leen waaye nag bu leen yàq waaye euh, mënees nañ leen a comprendre yedd goo gis yërëm a ko gën waaye nag nañ bàyyi wattandiku yenn yàq yi tey tey tey tey wax liñ bëgg lépp te àndandoo doon benn te wattandiku di différent bi te comprendre politique politiciens yi nga xam ne ñu ngi fi nekk depuis Senghor ba tey ñu fas yéene leen fee jëlee teg fi ñeneen ñoo xam ne danañ mën a danañ mën a danañ mën a danañ mën a doxal réew mi ci ci ci ci ak njëkk di leen ñaanit ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooy mars te ma dégg ñu lancé benn appel ne dañoo fas yéene mars commencé ko le 8 le 9 euh, le 10 ma leen di ñaan euh, man Cheikh Oumy Gueye moom soxna mi seex moom Cheikh Mouhamadul faadal la diis moom ñu bàyyi ko fi ndax mooy bisub Cheikh Mouhamadul Fadal te Cheikh Mouhamadul Fadal liggéey bu rëy la liggéey ci réew mi te bis bi bu ñëwee euh, maanaam euh, ku ci amoon naq da nga war a am mbégte ma leen di ñaan loolu rek ngir jëmmi sëñ Fallu ak réew mii nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la moom moom lañ bokk te sëñ Fallu bàyyi ci rôle bu am solo ñu ba ñu ñu bàyyi la diis ñu bàyyi ko man maa leen ko ñaan ñu ñu bàyyi la diis wormaale ko sëñ Fallu warmaale ko itam bis bi nga xam ne amul lu gën a màgg bisub euh, israaju wal mixraaj nga xam ne ci la julli wàcc li nga xam ne mooy ñun ñépp ay jullit lañ te suñ li nga xam ne mooy ponk bi gën a rëy ci lislaam mooy julli ci bis boobu la wàccoon ci la ci ci la yonent bi rañaane woon dem jëli julli loolu rek war naa tax ñu warmal bis boobu kon maa ngi leen di ñaan la 10 moom ñu ñu bàyyi ko fi ngir jëmmi sëñ Fallu waaye ñu bàyyi ko fi ngir jëmmi yonent bi di ñaan suñ kilifa yi bopp yi ñu yàgg fi lool te ak ak wér di lancer benn appel ci ñi nga xam ne ñooy sëti ñi nga xam ne ñoo war a yore relève yoon wi ëllëg muy ñi nga xam dañoo sëtoo ci euh, sëtoo ci sëñ Touba walla ñu sëtoo ci rakki sëriñ Touba yi wala seex yi nga xam ne sëñ tuubaa moo defar seen maam fu fu fu seen maam nekk rek. la fa ne sëñ sëñ Tuubaa ko def maa leen ne lancé appel ñu takkatoo te taxawal ay kuréel yoo xam ne ni day sosu ci kuréel yi nga xam ne dafee taxawoon ngir aar li nga xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa la ñun amuñu soxla ci état ndax euh, li sëñ Moustapha Saliou di wax naan euh, nguur ree da ko cee jàpp ndax bu ñu ko bëggoon dañ koy téye waaye bëgguñ ko ku am nag fii nga koy jëlee te boo ko amee bu la neexee lu la neex nga def ko boo koy wut nag nu ne nga koy wutee forme bu ne nga boo ko amee nag bu la neexee nga nga nga taxaw ku ñaan nga lànk luñ la wax nga bañ koo def euh, dañ ko bëggut buñ ko bëggoon far ko téye waaye ñun ñi nga xam ne ñoo war a ñoo war a aar euh, ndonal sëriñ bi muy turaas bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi nga xam ne ñun moom ñoo ci gën a neexle suñuy maam dégg ngeen seex yi nga xam ne ñoo fekke woon jamono yi sëriñ Tuubaa sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak sëriñ Mor Mané lañ doon ton tonte ñañ doon tontanteel ay kilifa yi àdduna ñu woon seen i nijaay lañ ay ndombay tànk yu kawe lañ yoroon te àndoon ak ñoom moo gën a yomb ci ñoom ñu taxaw joxe seen bakkan ne euh, folli la tey moo gën a yomb tekk sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax ñoo lànk euh, jom jooju amoon ak ngor ga war naa des ci ñun ndax ñun dañoo dañoo dañoo juddu rek fekk lépp baax ñu duñu du lépp ñu defaral ñu ko kon ñun bu ñoo ña mënee joxe seen bakkan ci ci yoonu Sëñ Tuubaa ñun lu ñu war a joxe ci ñun li may lancer appel mooy ñu takkatoo te gën a te xam ne réew mi dafa nekk ci danger ndax amatul sax sécurité ndax bu ñu demee ba euh, bu ñu demee ba ba ba ba ñëpp jàq ñëpp jaaxle te ñu xam ne réew yi ñu jege am na xew-xew yu rëy yu fa am ay terroristes yoo xam ne ni ña nga fa yor seeni kof ngir di bëgguñu lu dul réew mu lëj ba réew yi ñu wër yëpp ci jafe-jafe dañoo lañ nekk ba ci Mali gi ci jafe-jafe yooyu lañ nekk mën nañoo xam ne réew mi jafe-jafe am na ci te am nañ problème ngir suñu euh, sécurité dina mi ngi à ba suñu armee ak suñu. gendarmerie sax dañoo am jafe-jafe ci tenir jafe-jafe yii fi am mën nañoo mën nañoo xalaat loolu ngir wàcc ngir dugg si ngir raaxaloo ci mbir mi loolu nag ñun ñi nga xam ne dañoo war a aar suñ dëkk bi nga xam ne suñ tubaab moom muy titre foncier nañ ci def ay waxtaan te aar li nu bokk muy dëkk bi nga xam ne kenn du fi mën a wàcc ku dul noonu wala ci saayir si nag lay wax ndax baatin moom sëñ bi ñaan na ko ba noppi te dara mënu fee yàq waaye li nga xam ne mooy saayir ñu ñu ñu taxaw ci ndax fagaru moo gën faju fagaru moo gën faju ndax Sëñ Tuubaa dane wasarri sil xurbi wasarri naa i wal xarri wal bardi wasarril maa i loolu moom yàlla musal nu ci muy ay wu sori ak ay wu jege ba lii xew Dakar sax sëñ bi daa mel da cee ñaan muy sarrul maa yi ndax ñu bëri dégg jàpp nañ ne ndox amatu ay waaye ndox mu tàng moom am na ay te ñu ngi koy tuur fépp Sénégal te Touba mucc na ci kon ñoo ngi ñaan ñu àndandoo gën a di waxtaan te bañ a toog rek di seetaan alxaqu saabitu wa amaama albaatilu wa in ala fa saaxiqun wa saafilu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu